yéen a kaay gi nee ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi ni ki démb jano nañu ak taskatu xabaar yi waaye lu ñu waxul Macky duñu ko fàtte yàq nañu ko musiba ak mbelengaan journal bi du l'Observateur nee am na lu toll ci fukk ñoo xam ne njort nañu ne ci garde rapproché bu Ousmane Sonko la ñu bokk te ñu tegoon loxo ajuma ju ñu génn ñoom ti mandat leen dépôt yéen a kaay gi nee na Guy Marius Sagna sa diwaanu Ziguinchor dafa am retour a kaay na coalition Yewwi ne moom la Macky Sall nekk ci loolee mënuñu ko bàyyi mu sedd ak ñi nga xam ne ñoo jot a ñàkk seen bakkan nee nañu danañu saisir cour pénale internationale waaye tamit dinañu jokkoo ak commissariat des nations unies yéen a kaay gi dee alerte Mamadou Diop Decroix ak Birahim Seck bu forum civil ñoom nag ñaawlu nañu bu baax a baax Déthié Fall Ahmed Aïdara mi nga xam ne dañu leen a mandat dépôt ñoom jàpp nañu ne defuñu lu tax ñu war leen a jël ji leen yóbbu ca kaso ba doomu Jean Paul li nga xam ne moo jëm ci wàllum résistance ndax nag loolee mënta ñàkk te réew mi duñu seetaan Macky Sall di ko yàq te misala jëm yéene kaay gi de la Quotidien xëy duñu naan ñu Tiwaawan Serigne Babacar Sy Mansour ma ngi woote lu ci wàllum dialogue yéene kaay gi de la Témoin nee na sa ñi nga xam ne ñooy élèves yi ñoo jël xeex bi ndax démb élèves yi ñoo wàccoon ci mbedd mi yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko jamono ji bëgg ñoo bàyyi mbir mi sedd ndax nag nee nañu ñaar fukki fan juróom-ñeent ci ne moom la nekkee ci Sénégal loolee mënatuñu ko nangoo yéen a kaay gi ne na manifestation bi nga xam ne nag ñoom yeewi bëgg nañu koo amal Sonko nee na ñu jox leen autorisation ak ñu ñàkku leen a jox autorisation lañ ci yemale danañu ko amal fépp ci Sénégal mu neex Macky Sall ak mu ñàkk ko neex moom Sonko nee na nag bu boobaa Macky Sall ñaari mbir la mën a maanaam arrêté ko jël ko jàpp ko yóbbu ko ci kasu bi wala nag mu daal di koy faata maanaam mu daal di koy rayee Ousmane Sonko woo na askanu Sénégal ci ab concert de casserole àllarba ji nga xam ne moom la ñu dëgmal bu 20 heures jotee Sonko nee na kenn ku nekk mën naa jël ñaari boola wala nga jël sa ñaari kubéera bu vingt heures nga koy fenxale maanaam riir bi mel ni tulleeg male Ousmane Sonko nee na nag képp koo xam ne am na lu la naqare ci Macky Sall nga jàpp ne ni mu yore réew mi dara jaaduwu si àllarba ji nga xam ne moom la ñu génn bu vingt heures jotee maanaam na mbir mi jolli concert de casserole ñi nga xam ne tamit ñoo yor ay oto bu vingt heures jotee mën na ñoo klaxonné lu toll ci fukki minute yéen a kaay gi de la témoin nee na concert de casserole bi nga xam ne na koy woote étudiants ne ñoo nekk université Cheikh Anta nelawee yéen a gi di source xëy di ko dëggala nee na tamit ci mbedd mi ñoo xam ne seeni oto bi vingt heures dañu doon klaxonné waaye nag ñeena du étudiants yi étudiants yi ñoom démb safal nañu ko ba mu saf sàpp te nag àllarba jotugu la yéen a gi di vox papale njiitul Pastef nee na Antoine Diome ministre de l'intérieur ak Macky Sall ñaar ñi nga xam ne ñoo fi nekk di jàppaate bu ñu waree jàpp man mii la ñu a jàpp man Ousmane Sonko man man mi mu amul ndaye moom lañ gis ci mbir mi jàpp ñii bàyyi ñii wala nag nguur gi dañoo ragal Ousmane Sonko ab laaj la ma ngi ci direct sa ba tey ci biir yéen kaay gi du l'observateur ak le témoin ak las ak vox populi ñu xëy fekk fa Aminata Tall mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon conseil économique social environnemental nee na démocratie ci réewum Sénégal jamono ji maanaam dañu koy nappaaje dañu koy dëggaate dañu ko piétiner moom mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi maire bu Diourbel nee na li xew ci réew mi di Sénégal mën nañu ko tuddee lu ba mu des ay élection waaye naan élection yoo xam ne suppléants yi ñooy dem wala xawma titulaires yi ñooy dem loole amul fenn amul ci sunu loi réew loole ay caaxaan la dañu koo war a bàyyi te am na loo xam ne wër ta xew ci réewum Sénégal mbooleem li nga xam ne nag mooy xew ci réew mi Macky Sall mooy responsable kàddu yu Aminata la dafa mel dafa mer de te nag li nga xam ne moo am dañoo war a xeex ndax nag sunu démocratie bi waruñoo seetaan kenn di ko yàq moom Aminata Tall moom soxna si nee na jamono ji amul kenn ko am espoir ci réewum Sénégal déception totale moo am ci Sénégal xam na ñoo war a marche ñoo ñooñee dañu leen a war a encadrer ndax nag ci seen àq la ak seen yelleef te nag dañoo am sañ-sañ marche wane seen naqara yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar nan ñu njiitu réewum Russie di Poutine bëri na doole loola ndax nag bëri na ab dund ab céréale céréale bu bëree bëri boo xam ne ay millions ngi tonnes la waroon a jugee ci port yu Ukraine yi ñëw ci dindu Afrique Poutine moo ko bloqué loole njiitu réewum Ukraine moo ko daal di xamle nee na dund gi nga xam ne daal ay millions ngi millions ngi tonnes céréale bu waroon a jugee